wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbok yi ma ngi len di nuyu bu baax di len ziyara di sante yalla bu baax doli ci lan ko santone ñu maye nu fekk waat jotaay bi waye di sante bu baax itam sunu mbokki talib yi nga xamne tay wa darini. nur nuuru yi nga xamne dañu ñewon jàngal xasida muy loo xam ne ci gàmm gi dañ ko yéene woon yàlla dogal keroog mu ñu am ngant tey jii nag ñu ñëw ngir àggale ko mu doon loo xam dañ koy dañ koy tàggoo weer wi loolu noo ci sant bu baax ndax jàng mi pëstéefu na lool te wér lool te sell lool te ànd ak yéene ñaan yàlla nangu ko te fay leen ci ngeen ji fay te bégal ci sëriñ bi te def ko muy Gamu gu nu nangu hmm. ci daraje serigne bi def ko mu dugg ci bir mbegum serigne bi nga mom la da am ci wer bi xam ngeen ne serigne bu mag bi ku fonkon gamu la bu weeru gàmm bu sa dugg da ci bëgg lool wax nañ ne aajo ju ko nit sa wax ci weeru gàmm faaw mu fajal la ko moom ci moom wax na wax na yu mel noonu ba ci biir mi tam wax ne saadati adharaha rabiu saadati adharaha rabiu al awalu alladi huwa rabiu maanaam weeru rabiu awal muy weeru gàmmu nee na moo mën a jeqi mbégte ci xolam bu weer yi masaa dem bay jeexit faww da koy da koy da koy da tàggoo ak ay xasida gis nañ man señ mom ba fi Mamour ànd sëri jógee ci dewen sa la tàmbalee te moy assassin assassin boobee la tàmbalee gam moy 1301 tolok 1882 bobé la tàmbalee gamu. nga xamné bobé la tambali at mu gam gi faw mu def ci qasida bisu gamu gi da koy gàttandu ci ak ay xasida eh, dalal ko manam magal ko am na xasida yu bari yo xam yow mo mawlidihi fi ne laylatul mawlidi sëñ bi da ko daa màggal da màggal yow mul mawlid yow mawlid moy buñ gamu ba ca ba ca ba ca ba ca top ñu war duñ ko baye xel maanaam bisu gamu gi ci guddigi ñun lañuy ñuy waye bis ba ca moy yow mul mawlid gis nga yowmul mawlidihi hada waye we ci lolu da da tag gam manam da ko da tagu itam bu dem bu jeex da koy da koy tàggu moom la wax ne mëllëgtu mawlida nabi min asasi kitaabati maanaam boobu la ko tàmbalee jox mbindam fonk lool am na ci xasida yi mu tàggoo gàmmu gi xasida goo xam ni xasida gu yéemu la mooy gi tàmbalee abar rabiu siwal idbaari bi niami min baadi iqbaalihi bil ardi wa naami mooy weeru gàmmu wi day bëggul lu may jeex rek awal rabiu siwal idbaari bi niami weeru gàmm ak xéewal yi mu àndal yépp li na ci ak li na ci biiram ci xéewal fi mu ne bëggul lu may jeex min baadi iqbaalihi bil ardi wa naami teg ci ne foofu aba aba yu bari la ci la ci teg aba mooy bañ na maanaam nangut bëggul lu may lu may jeex rek aba rabiu siwa tawdii murtaxilan bima lahu min busharatin wa min karami rabiul moustapha mi daal muy weeru gàmmu wi di weeru yonte bi sallallahu alayhi wasallam bëggul lu may tàggutoo te moom ay mbégte rek la feese ak xéewal ak i teraanga abar rabiu rabiul moustapha wazari siwa rawaxi wa gayra seyri lam yarumi nee na weeru moustapha wi sallallahu alayhi wasallam bëggul lu may dem bëggul lu may jeex fa qultu xiina aba gayra almasiri lahu sir ya rabi wa ma fi minka min sa ami nee bi ma demee ba xam ne nag moom pexe amatu ci nga xam ne faw mu jeex dama ne ko sir ya man ngaa dem man ngaa jeex waaye wa ma fi minka min sa ami waaye man de yoqatuma ci yow bëgguma nga jeex bëgguma itam weer wi jeex sallallahu alayhi wa weeru sallallahu alayhi wa sallam teg ci ne ko sir rachidan bi fuaadi ya rabi ila man kunta zarfan lahu waqra lahu kalimi mën ngaa dem mën ngaa jeex waaye booy demit da nga yóbbaale sama xol sirra sidan bi fu aadi da nga yóbbaale sama xol yaa rabion man kunta zarfan lahu booy dem xam naa ca rasul ca ngay dellu mi nga xam ne yaa doon ndab ci moom ci yow feeñe waaye boo demee nag maa ngi la koy maa ngi yóbbante ci moom waqra lahu kalimi mooy maa ngi lay yóbbante ci moom waqul lahu ah, te jàttak ne sirra sidan li rasulillahi sayidina waqra ilayhi salaami min yadi wa fami na nga dellu ca yónnante ba sallallahu alayhi wa sallama waaye nag ma ko waxal yóbbante bii muy bataaxel boo xam ne ci sama loxo la jóge ak ci sama gémmiñ mooy lii muy bind xasida gi muy bind da caa teg ne ko waqul lahu ya rabi al xayri inna lahu huna xadiman bi ma yurdihi da xidami na ko xamal ne am na fii ab xadim mooy ku koy liggéeyal koo xam ne li lim gërëm rek ci la nekk di ko liggéeyal waxtu wu ne lahu xadimun yusalli bisalaami huna alayhi bil aali wal ashaabi bil qalami na nga ko xamal ne am na fii koo xam ne da koy liggéeyal dëkk ci ak sax ci di julli ci moom ak asalmal rek di ko def nag ci xolam ak xelam ak làmmiñam ak xalimaam waaw foofee nag xasida nga xam nga da ko jeexale ay salawaat yu baree baree bare waaye am na ci salaatu ko xam ne wax ne ci moom rek lañ ko mës a gisee mooy li ma wax ne alayhi xayru salaatin bi bila haddin wala gaayatin Mamzujatan bi dami mooy yalla na def salatu ak salam go xamni do amu dayo do amu app du yam fenn waye mu jaxase ko sama dereti bop soti ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam kon serigne bi mom wer wi wer mu fonkoon la wu mu euh, don yakamti la da ko da ci bekk da ci def ay teranga ak euh, berne diko defal mbollem ñi nga xamne dañuy jàng mawlid te mooy ñiy nett li mawlid du dara lu may nett li feeñu yonent bi sallallahu alayhi wa gisee mboolem yi mu wax ci gis bu fa man taa man hayya li man lahu qad qaraa qad qaraa mooy ñi nga xam ne ñooy jàng maanaam xisatul mawlid yi boo gisee borom xam yu bari yu mag yëpp def nañ xisatul mawlid nga xam ne feeñ gi yonent bi la ñuy nett li loolu nag gis bu moom la gis bu moom la mawaahib bi mën na mën na cee dugg mag ñi daanañu wax ne gis boog mawaahib boog muqaddamat yooyu mat nañ gàmmu waaw kon loolu eh, seen njataay bi maa ngi ci sant yàlla bu baax nu di ko def ak tàggatoo ci weer wi eh, rasulullahi nag sallallahu alayhi wa sallam moom gàmm gi ak fonk gi koy fonk lépp buñ ci amutoon benn lu may ne sëriñ bi sëriñ bi da ko fonkoon rek loolu doy na dëgg dëgg dëggi tegtal doy na dëgg dëggi dégg nga dalil dalil gënu koo féete kaw ndax sëriñ Tuubaa amutoon jenn yitte ju may xeeñtu li te bàyyi ko ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax ne eh, wax ne laysat li al yowma xaajatun u ammiluha si waqtifaika xafwal qalbi wal badani yitte jëm amoon ci xeeñtu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yitte jooju yaakaar naa doomu aadama dootu ko amati ba tax na kon lépp loo xam ne def na ko rek xam ne loola mooy jam jub ga bu loolu lépp weesoo itam bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa laaj lépp loo lu ko laal rek bu agsee mu fàttali la ko nga bëgg ci maanaam maanaam am na waa ju baax joo xam ne dañu ko laaj yéen seen dalil ci gàmmu mu ne mooy bëgg gi nu bëgg yonente bi rek mooy sunu dalil sallallahu alayhi wa sallam maanaam bëgg daam loo xam ni maanaam bëgg ay axwaal lay jur maanaam ki bëgg sëriñ bi dëgg-dëgg saa yu rombee Tuuba faw xelam dem ci sëñ bi faw mu siyaar foofee itam ki bëgg sëriñ bi itam faw bu weeru safar ñëwee dana wuteeg moom yeneen weer yi masalan mm-hmm. noonu la bëgg yonent bi itam sallallahu alayhi wa sallam mel ki bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa weer wi fu mu ñëwee faw mu mu am cafka gu muy def ci xolom mm-hmm. cafka gu muy def ci xolom ak mbégte mu muy def ci xolam ak fàttali gum mu koy fàttali eh, yonente ba sallallahu alayhi wa eh, ba tax na gis nañ yonente bi ci boobu rek sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom da doon ku bëgg madinal war am na benn xare boo xam ni daa génnoon yàgg ca lool waaye ba mu delsee ba jub dëkk ba fekk boobu dañoo war ñëpp war ñii di dox ñu ànd ñëpp ne cell am mu demee ba jub dëkk bi rek dañoo ñëpp dañoo dégg kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne haadihi taaba haadihi taaba mooy madinaa ngi nii nga xam ne waxi mbégte la ko waxee ci teg ne haada uxud uxud mi ngi nii daal ne jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu moom doj la montagne la woo xam ni dama bëgg ma bëgg ko sallallahu alayhi wa sallam xanaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danay wax ne ñëpp ko bëgg lépp ko bëgg ñëpp ko xam Sëñ wax na ne bihi bunil arduna wa wa xuliqa rijaalu wa maanaam ginnaaw ci moom lañ tabaxe lépp asamaan seeg suuf si maanaam ci leeram leeram mooy li jiitu nga xam ne mboolem liñ sàkk li yàlla sàkk sëñ bi nee na ci la ko sàkke te loolu mooy la wér mooy xadis bi bi nekk ci musannafu Abdurazaq te mu jële ko ci Maamar sëriñam boobee di sëriñam Imaam Ahmad xadis boobu eh, borom nit yàlla yëpp wéral nañ ko amul sikk sax kasfan niñ koy waxee lu bare bare mooy Jaabir ibnu Abdillah moo laaj yonente bi waaw lan la yàlla njëkk sàkk mu ne ko nuura nabiyika yaa Jaabir nuura nabiyika leer googee nag ci la suñu borom tabaxe lépp loolu dem nañ ba fi ne maanaam eh, maanaam li ñuy wax science sax saxal na ko xam nga mbooleem yi nga gis yëpp ay fepp ko moo ko composé doj yeeg yëpp ay fepp moo ñuy daraat dara mooy mooy atome ñoo atome maanaam mboolem loo jël ci yi baga lépp day dellu ci ay fepp yu ñu tudde ay daraat dara boobu nag boo ko tojee ba ci biir maanaam dara nekkaatu ca lu may li wax vide bu rëy ak ay électro ak ay électronaat ak li ñuy wax protonaat yu dem noonu yooyu boo ko boo ko boo ko tojaatee ba ci biir boo dugaatee ba ci biir dara nekku ci lu ñuy ay quark quarkaat loolu boo ko ba ci biir dara nekku ci lu ay feppi leer daanaka énergie bu boo xam ni mooy soppiku léeg-léeg matière matière bi léeg-léeg mu defaat énergie maanaam mooy cosaani mbir yëpp ak leer la ak leer la daan leer leer gi moo mooy mooy li mooy li mooy li sos lépp moo nekk ci suufu lépp loo toj ba ca biir ak leer nga ca fekk leer googee nag sëñ bi wax ne min nuurihi kullu nuurin bi sana nuuru nujumi wa nuuru shamsi wal qamari noonu la ko waxee maanaam leer leer yi nga gis fii ci kaw suuf ak ca malakuut ak ci leeram la la bàyyi ko moo tax sallallahu alayhi wa sallam ku mat a fonk ngi noonu ku mat a ngi noonu ku mat a jàpp ngi noonu fi ne borom xam yu bari ni lay jàngale yonente bi yow eh, maanaam surtout dafa am jamono joo xam ni bindkat yi ni ñuy bind ci yonente bi maanaam nit ñi duñ ko mën a sopp ndax ay xeex lañ lay wax ci moom xeex na fii xeex na sëñ bi nag boo gisee mawlid yi ñuy jàng doo ci dégg sax ab xeex dañ lay wax melo yonente bi mooy chamail a chamail al muhammadi termisi bind na ci borom xam bari bind nañ ci yooyu moo ma taxam mooy melo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy koo xam ni sunu borom moo ku njëkk a fonk maanaam jaam boo xam ne yàlla ci boobu neen damay julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam xam nga yàlla sëñ bi yàlla buur bu mag boobu nga xam ne moo sakk lépp moom amul kenn ku muy jaamu yàlla xam nga noonu moom la ñuy jaamu booy julli moom ngay jullil booy woor moom ngay wooral looy def moom nga koy defal maanaam moom moom moom jaamu waru ko te mu wax ne na jaamu yàlla goo xam ne dana ko def te mooy salaatu ala rasulillah sallallahu alayhi wa te moom rek du moom kese inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuha na amanu sallu alayhi Manam yalla ak malaika yeb dañuy masé di julli ci mom sallallahu alayhi wasallam Manam malaika yi kenn xamul ñu toll yonte wax na ne ci ci asaman si fa tolloo kaaba ga amna na asaman su njëkk sa ko lu ñu tuddé al baytul ma'mur nga ne moy kaaba ga malaika yi neena bis bu ne juroom ñaar fukki junni malaika juroom ñaar fukki junni malaika dañ fa dugg buñu gene dootu ñu dugg ñeneen ba aduna soso ba legi xam nga malaika yi kenn xamul ñu toll ana malaikum yalla xam yalla rek mo xam nuñ ton fene tay te xiyam bu nit ñepp taxawé jinne yi dañ leen di wër ñoo leen upp waye malaike dañ leen di waraat nak mu ay wër wër yu bari <laughs> ndax ñoo upp ñepp te malaike ñom la ya'suna allah ma amarahum duñu mooy yalla lu sel rek ci lañ ne te gis ngeen seen yitte moy julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam inna allah wa malaikatahu yusalluna seigne fallu mbakke mu bax ma dara wax ne tol bo xamne sun borom ci mom moko tobbi malaayka ya dal ca sos nee tool boobu kuñ ca woo nga war caa sawar <laughs> te mooy julli ci yonte bi moom sunu borom ci moom nee na maa moom da koy def day julli ci yonte bi yëmul ci loolu yonte bi nee na képp man salla alayya salaatan wahidatan sallallahu alayhi biha asharan mooy xadis bi imam muslim net li maanaam boo jullee ci moom benn yoon suñu borom day julli ci yow fukki yoon maanaam su yow yow nun jaam yi nga xam ne xëy amoo solo lool fi ne boo toogee julli ci moom maanaam dañoo xool jàng rek nga xam ne sëñ suñ tuwaamu mooy koo xam ne fu mu tudd yonent bi faaw mu julli ci moom lu mu jege-jege waaw sayidina muhammadin wa ali wa sahbi fil xaali wal maali loolu bi seet waxtu ni nga dégg ko ko tudde faw moom loolu da ko jaay daa bokk ci yim jaayante maanaam du ko tudd mukk te julliwul ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak tudd gi lu mu jege-jege bu dee bind itam du def ak saat nii ñi def saat ngir nga xam da ngay bëgg gàttal déedéet moom day wax sallallahu alayhi wa sallam dolli ceeg ñaan doog a wëy léegi nag julli googu boo ci defee genn rek sunu borom ci moom mooy julli ci yow fukki yoon huwa alladi yusalli aleykum wa malaikatuhu nga xam ne loolu tawfeex ji foofu lañ ko amee julli gi ngay julli ci yonte bi moo lay may sunu borom mën a mën a mën a julli ci mën a julli ci yow fukki yoon boo jullee ci moom fukki yoon sunu borom julli ci yow téeméeri yoon ah, liman yusalli marra alayhi asran qad tuniru birra man mu wax ci ñëlbeen nga kon yonente bi sallallahu alaihi wasallam sun borom moko ñëk fonk fonkel gi mi ngi ci <clears throat> yonente bi mo doon sayyidu waladi adama lool wax nako tay ci hadith imam muslim ne ana sayyidu waladi adama may sangup de nga mbollem dama adama yépp sunu borom da ko tan naka jek wa kulluhum min nikahin lolé señ wax manam ñi ko meñni kenn ku ci masa moy yalla wala mu wedd ci yalla amut ñepp ay ay ay ay ay ay jullit la gëm yalla ab yéefar mus lolu moy li wër xam nga señ bi si abdul mutalib kërok ma ngi koy wax kërok bi abraha ñëwé ci di ndey mabbu kaaba gi de nga te abraha bam mu daata dugg ci makka xam nga da dogalé jur gam gis ci ci yoon da koo dog da jël bam démé diko laaj xaram ya ak kii ya, mu ne ko yow ma ngi ñëw mabbu seen kibit nga ñëw di laaj ay xara ki nak mu ne ko xar yi maa ko moom jur gi maa moom waaye nag lil kay lil kaabati rabbun yaxmihi xam nga ma doon wax lil kaabati laata wal uzza wala yooyu waaye lil kaabati rabbun mooy kaaba gi dafa am buur boo xam ni moo ko moom gis nga abdu waajur sayidna Muhammad abdullahi la tudd xam nga mën tudd abdul uzza bu ñu ay yéefar loolu la tudd abdul uzza wala abdul laata wala te abdul uzza moo amoon abdullahi ñoom xamuñu ko woon abdullahi mu gis nga moom rek moo ko fa tudd waaw ah, gis nga waajuram bu jigéen tudd Aminatu nga xam ne mënoon naa tudd neneen gis nga tur yooyu du turi yéefar turi jullit la moo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom ci moom moo ko waajal lépp fi ne tey eh, ki ko ki ko ki koy ki ko yar ummu ayman baraka baraka lañ koy wax ummu ayman baraka gis nga tur yooyu te yeneen tur yu xoromu amoon na amoon na ci ci arab yi muy jëmm joo xam ni <clears throat> sunu borom tabaraka wa taala da ko bëgg lool keroog nettali naa ci jataay bi weesu bi noonu def gàmm gi ne eh, imaam muslim nettali naa ak ibnu asakir ak ñeneen wax ne yonente bi dafa am ay jamono mu muy xalaat xeetam wi sallallahu alayhi wa sallam wax sayiduna Muusa ak lam wax fa man tabiani fa innahu minni wa man asaani fa innaka gafurun rahim wax sayidna isa lam wax moom in tuadibhum fa innahum ibaduka wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim waaye moom mun nag ummati ummati wax sun borom ko sama xeet wi sama xeet wi daa boole kook ay jooy sallallahu alayhi wa sallam wax na ne fa saasi sun borom daa yewal sayidna jibril ne ko wax ko ne ko nun kat laaj ko lu muy jooy mu ne ko sama xeet wi laa bëgg sun borom yërëm leen te dimbali leen nee na suñ borom xamal eh, wax naa Jibril ne ko nee ko xeetam wi de duñ ko ci teg mukk gàcca duñ ko ci defal muk mukk lu ko naqar moo ta si mi xam nga loolu mu wax ne yaqulu kulluhum wa nafsi man xiyaam xam nga mbir ma day jaxasoo te day jaaxle day bari ndax xam nga benn bërëb ñu taxaw fa juróom-ñaar fukki junniyaat ci aw naaj te mënoo toog amut toog da <laughs> taxaw rek xam nga boobu taxaw te bis yooyu bokkut ak bis inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin waaw ah. wenn waxtu foofa fi ne ay junni junni at la fii loolu na xam nga day metti moo tax nit ñi dañuy njëkkee ki daw ca Seydina Adama ne ko nag yow yaay Adama mi nga xam ne yaa meññ ñëpp léegi nag dañoo bëgg nga wax suñu borom léegi bu dee dugal sawarit mu dugal nu fa waaye taxawaay bi yàgg na Seydina Adama la mu leen wax moy nafsi nafsi nafsi inna rabbi ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu moy man kat fi ne sama bop rek laatal ndax ndax kat sun borom mer mer fa dem di wax ak mom len ne ko tayit man dama am luma luma defon luma sun ma borom santon ma ma defumako ko xara ngeen dem ci noox alayhi salam dañ demé ci noox ma leen ah, nafsi nafsi إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ne leen man sama bopp laatal wax leen moom it ya tax ñi muuta taxaw fi kanam suñu borom nee na bu ko dee ñu ibrahim ñu dem sayidna ibrahim wax leen loolu man it ah man it mi de sama bopp rek laatal ndax am na yu ma jot a def yoo xam ni moom mënu ñi ma taxaw daal fi nee na ne leen dem leen ci Seydina Moussa Moussa itam bu ñu demee ci moom alayhi wax leen lool ne leen ah nafsi nafsi inna rabbi xadiba al yawma xadaban lam yaxdab qablahu mislahu walan yaxdaba baxdahu mislahu maanaam sama bopp laatal tey jii daal moom sëñ bi ñi mu maa fi kanam suñu borom di wax dara xam nga lool sëñ bi doon na war de yónnante yooyu nga xam ne ñoom la yàlla yónni kenn ñi mut a taxaw <laughs> neen leen dem leen Seydina Isa Seydina Isa itam noonu ne leen ah man it nafsi nafsi <laughs> inna rabbi ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu misla ne leen nag xanaa dem leen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñëwee Seydina Muhammad da leen wax ne ana laha ana mooy man rek maa ko fi man da ngeen da ngeen <laughs> dem gi ngeen dem fu ne ngeen dem fa <laughs> deen waroon njëkk ci man xam bu doon laha ana xam wut nag ana laha ana laha mooy mooy maa mooy mooy mooy loolu maa ko ko mën a taxawee nee nak fa kanam sunu borom lay dem sujjuut di ko tagg ci tag yo xamni ne kérok lama koy xamal xam boo gisee boo déggee noddu sunu yonente bi daal na ngeen neen ko ñaanal al wasi al al al al al al al mahmoud maqaam al mahmoud maqaam al mahmud gogé na nga xamné mom lañ koy ñaanal lolo tax nee bu démé ba wax lolo ba nopi nak sunu borom ci waxin rek sunu borom mer mari daal di mu ne ko yaa muhammad irfa ra'sak yëkkatil sa bopp jógal toog wasal tonta wasfaatu safa waaw loo laaj ma jox la ko boo tinoo itam ma tin la xam nga kook bu ko defee nag nee na am na ci riwaaye boo xam ne da ko xam ne ko zurriyatu aadama seti aadama yi daal ak ñëw ak doomu aadama yi daal la bëgg nga dimbale leen ñu lijjanti leen loolu mooy ramm mi jiitu ci ramm yi foofu nag sëñ Muntaxa Mbakke mu mbax mi loolu mu wax ci ne maanam nee na moom bu bu nee sëñ borom sëñ bi bu nekkee feese <laughs> nee na maanaam yonente bi nekk fe itam moom ci sëñ ba lay jawal rek xam nga loolu it fi ne gaa yu bari ñu ngi ci wax ma san fa dem ndeysaan rahma radiyallahu anhu wa ardahu yàlla na ko yàlla yàggal mu ne ma am na ci yàlla ñu waxoon nañ ma ci takk fiir ma ne ko yow de Mbakke ku la takk fiir boo dul ab julit ab julit amut waaye loolu yi mu wax rek mooy mooy mooy kii bi maanaam dem nga nga dem ci aadama ak fu ne nga dem fa bala nga dem sa maam kay Sëriñ Tuubaa xam nga daan wax ne ab murit murit dëgg-dëgg bu bu bu bu ngi mel ne liir buy doog a juddu maanaam moom mooy sunu baay noonu di sunu nday ci diine xam nga toog gi ngay toog fi moom xam nga liir xamut xamut xamut ku may baayam xamut ku may ndeyam xam nga xam nga ab liir bu ndaw bu ndeyam toogoon fii président bi bu toogoon fii wala xalifa bi toog fii moom xamut ñooñu ndeyam rek la xam <laughs> moo ci ndeyam lay yem moo tax murit day yem fi sëñ bi rek bu yi wëree ci aadama fu nañu dem nu fekk nu sëñ bi sëñ moom du teqali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga kon Seydina Muhammad mooy jaam boo xam ne yàlla jaam bu yàlla taral rek noonu jaam bu yàlla bëgg maanaam am nay aaya yoo xam ne bu wàccutoon ci alxuraan ku ko wax ñu ne la yow ab mushrik nga limane wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina maanaam yërëm nit ñi moo tax yàlla yabal ko nga xam ne day mel ne bu dul woon ak moom duñ maanaam duñ yërëm nit ñi mooy yërmaane aalamina itam du yemul ci doomu aadama yi rek alhamdulilahi rabbil alamina xam nga la wax rabbil alamina foofu mooy mooy alamina mooy lépp lu yàlla sàkk rek yërmaane la ci ñoom suñu borom àgg ci wax ci alxuraan ne dajale na ambiya u yëpp نلن وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم وإسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ما إذا دجل يب نلن كتي دجل محمد مي صلى الله عليه وسلم ننكو تجاب لكو نلن لول نك ndax saxal ngeen ko ndax dangeen ko signé ñu ne ko waaw danañ ko signé aqrarna aqrartu qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min ashahidina maanaam maanaam loolu lu mat a seet la wa ana maakum min ashahidina maanaam loolu kon na ngeen ko seede man it ma bokk ci ñi koy seede ku ko tebbi ku daje yonent bi sallallahu alayhi wasallam def leneen fa man tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiquna loolu borom rek moo ko sañ wax ak yonent moom sal radiyallahu sallallahu alayhi wa sallama wa tabarakallahu jalla jalaalullahi wa jalaaluhu moo tax sayidna omar ibnul xataab mas naa wax yonente bi ne ko yow day bi mu koy wax ndeysaan mi ngi jooy xam nga lii xol xol boo xam ne day jekki-jekki tooy loolu ci saxaaba yi la tàmbalee xol buy tooy loolu murid yi jëkke wuñ ko sayidna omar daa jëkke ga rek xaal lu mel ne dañuy lu mel ne xaal dikkal ne ko بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم نكو ما عند أي جوتة سما داي أك سما باي يا رسول الله يا مين خم ندال خمنا يا الله مم فملا تكرين لول نخ يا الله مجي يوني تبي مي تدو يوني تي يا الله جيرل وخنا ويدا خذ ويدا ويدا خذنا من النبيين ميثاقهم تابع دجاتك ومنك دكتور تفتح نك ومن نوحين wa ibrahima wa moussa wa isa xaw moo mujj waaye tiwul xam nga moom la jiital ne yow xam na fi mu la teg moom kawe na loolu daal cee teg ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulallahi laqad balaga min fadilatika indahu anna ahla annaari yawadduuna an yakunu ataacuka wa hum bayna atbaaqiha yucadabuuna yaquluuna yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula ne ko borom xam na moom jox na la cër bu rëy ndax yow mal ginaaw ginnaaw buñu demee ba sa waa sa nekk sawara bu ñuy yuuxu lañuy wax lépp weesut ak a neexoon nu ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam bokk ci ñooñam waaw kon ne ko yow mu xam naa yàlla fonk na la maanaam jaam boo xam ni ni ma ko waxee léegi alxuraan am na ci aay yoo xam ni maanaam bu du woon ak nekkutoon ci alxuraan ku ko wax ñun la yow yéefar ngeew amul sikk inna alladina yubayiunaka innama yubayiuna xam waxut ka annama انما يبايعون الله معنى ني جاينت يو يالا سي بوفم لا ني جاينتل يد الله فوق ايديهم خم بو نون يد الله فوق ايديكم رسول الله بوك سي واي ايديهم موي مان لوخو يالا مو نيك سي كاو سين لوخو نيوم غاني نيغا تك سين لوخو سين كاو خم دول واخ لا خم مو نيك شرك ولا ام دو شرك او فيرم واخ ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه xam loolu yontu bee ko moom waaye mu teg ca watu sabbi xam nga watu sabbi watu sabbi xooxu bukratan xam nga demir ak yooyu dañ koy delloo ci aqrabu amil inna arsalnaka shahid li tuminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu xam nga loolu yontu bee ko moom waaye dajaa teg watu sabbi xam nga loolu mu yàlla ko moom xam waaye maanaam mooy wax mooy mooy yi gaa yi wax rek mooy murid yi def rek gis nga allahu wa rasuluhu axaqu ay yurduhu xam nga damir boobu doo xam foo koy delloo xam nga ayur duuhu ndax da nga koy delloo ci aqrabu amil te mooy rasul rasuluhu wala da koy delloo ca ka jiitu mooy allahu wala ñoom ñaan ñëpp wa ma ramayta id ramayta walakin allaha rama yonte bi moo yor mu xëpp ko gaañi mu ne ko ma ramayta is <laughs> allah xam nga wax jooju sëñ bi kenn mënu ko tekk <laughs> moo tax jaam la boo xam ne jaam bu yàlla fonk ngi noonu waaw eh, jaam bu yàlla fonk ngi noonu na ci topp ko mooy topp yàlla wa man yut man yuti rasula faqad ataa allah gëm ko itam mooy gëm yàlla waaw aminu billahi wa rasulihi innama almuminuna alladina amanu wa rasulihi weddi ko mooy weddi yàlla kafaru billahi wa bi rasulihi illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi jaayanteeg moom ni ma ko waxee léegi mooy jaayanteeg suñu borom tabaraka wa taala yooyu yëpp fi na gis nga ci alxuraan da koy lëkkale waaw xeex moom it mooy xeex ak suñu borom yooyu yëpp wax na ko ci alxuraan faadanu bi xarbi min allahi wa rasulihi waaw innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasulahu ku yàlla dañ ci moom it yonente bi dañ ne ci moom ku yonente bi ci moom yàlla dañ ci moom yaa ne min allahi wa rasulihi ila alladina ahadtum nga xam ne <coughs> ku ànd ak moom it euh, ñu wax ne innama waliyukumullahu wa rasuluhu xam nga daa am yoo xam ne yàlla rek moo ko war a jagoo waaye gis nga foofu ba ci hijra gàddaay boo demee ci yonente ba ci yàlla nga dem loolu la wax wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila llahi wa rasulihi maanaam fi ne tey jaam boo xam ne tey boo bu ñuy nodd faw ñu tudd ci turam ashhadu an la ilaha illallah faw nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah biir julli nga xam ne julli xam nga yàlla rek lañ ko war defal waaye faw booy taay nga ne ashhadu anna mo ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu turam faw nga tudd ko ci booy dugg ci lislaam it boo ne laa ilaha illallah yam ca képp yow duggagoo duggagoo faw nga ne wa ashhadu anna muhammadan sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam xam nga ne booy dugg ci lislaam faw nga tudd turam booy liqaam faw dañuy tudd turam bu ñuy eh, julli ci biir julli gi faw dañuy tudd turam xam kooku sëñ bi jàmm bu yàlla fonk ngi noonu waaw jàmm bu yàlla fonk ngi noonu moo tax sufiyanke yi ak nit yàlla ak sëñ bi sëñ bi rek sëñ mag bi rek nga wax ci gàttal nga ne moo jëmmal ñoo ñëpp ñoo ko jox xàqam waaw fi mu ne <coughs> eh, fi mu ne ki juyoog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki juyoog moom fi ne li yonent bi def ka juyoog moom day xool suñu borom li mu ci wax ida qada allahu wa rasuluhu amran wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim teg ca wa man yaasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina من soxna soxna yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam nga amna jamono yo xamni dañu sàkku ci mom mu yokkal leen dépense bi maanaam xéewal yi ñuy joxe ci kër gi waaye yonente bi suñu borom a tontul fi de suñu borom jom moo wàcce aaye wax ne ko qul li azwajika in kuntunna turidna alxayata addunia wa zinataha fa umattiakunna wa usarrixkunna saraxan jamila وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ما يبين بفك أن أدنى لن ير كايلين مبايلين ين يبي يويلين ما يسون برا ما قالوا نلين بلين بفك أدنى لن ير ممكن بق ممكن لجند نلين يون تبي بايلين نلين ديالو سياتي كنن وأنا فك يلا لن ير أكو يون تيمك الله يوم الخيام ها نين خمنة نين توك تمون bu yonte bi bu leen sàkku ci moom mu leen mu yokk dépense bi <laughs> waaye loola fi ne am na ci loo xam ne kutub siiri duñ ko nettali am na soxna suñuy wax Fatima Daxaak moom doo yonte bi ne ko man moom moom moom bu fekkee dépense bi mën si ko yokk damay moom damay damay seeti nga xam daa yonte bi da ko bàyyi ñi ci des ñëpp nag dañoo toog waaye Fatima Daxaak gis nga mujj gi dafa mujj tumuranke tumuranke ba mujj xel mi ci sax daa daa dem nga xam ne wax nañ ne mujj gi dara day wax ne man day lii de li ma ko teg lu may maanaam bëgg adduna rek ak jiital adduna nga xam ne day mujj jaaxle bari coono lool bari jafe-jafe xam nga yonent boo ko fi bàyyee sëñ bi <laughs> sallallahu mi ngoog moo tax kon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, mooy koo xam ni suñu mborom ci alxuraan yonente yi kenn ku ne tudd na saw tur sàllawlu la waaw nga xam ne yaa nuux gis nga ko nga xam ne da lay woo bu lay woo wax yaa nuux eh, mi ngoog ak lu mel ne <clears throat> yaa nuuxu ihbit ak yaa Muusa inni safaytuka eh, yaa aada muskun yaa isa bna maryama يا زكريا إنا نبشرك يا يحيى خذ الكتاب يعني يونت يا خم كان كنا وانا واي سيدنا محمد مم أم الفن فم كوه دف لني وقت سالو لو نحن فاود يا أيها الرسول لك يا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها المدثر يا أيها المزمل لا لا فين بتودي ترم رك إخبار معنا داي وخ با أجت تودي تروي day do net li day net li mir ba ag ci tudd tur wi bu koy wo mom du jaar ci turum te te te te jiitalul dara lo xane ak magal lay lay tek waaw yonente moy ko xane xam bu fi mas jaar waxna wa kërëm ak ñoñam ne len kat sama gina amna na kuy ñew sayyidna isa gis nga wa mu bi rasul yaati min ba'd yasmuhu ahmad ahmad la tuddu na ngeen ko japp bu ñewé ngeen top ko yonente bu fi jaar rek waxna lolu njabotam sallallahu alayhi wa di koo xam ni moom xëy na euh, mëne su ta wax léppam waaye moom ni ma ko waxe léegi fi tey lépp lu ko yéefar yi wax boo gisee ci alxuraan yonente yi lu ci ku ci yéefar yi bu ñu masaa dal ci seen kaw ñooy tontul seen bopp waaye yonente moom fu ñu ko waxee dara rek yàlla ci moom sunu borom tabaaraka wa taala mooy tontu xam nga bañ bañu waxee ne <coughs> euh, saa'irun mooy day ab waykat la kii daal ab waykat la دفعني ما علمناه سعره وما علمناه سعره بني كاهن لا دفعني ولا بقول كاهن بني كيرا ضالون دفع دفع سانكو من ما ضل صاحبكم بني معنى دفع انت خلم مجنون من ما وما صاحبكم بمجنون بني دفع امكو كوي جانجل ku koy wax ci suuf lii muy wax ni dafa xam ne lisaanu alladi yulxiduuna ilayhi ajamiyun wa hada lisaanun arabiyun mubin waaw moo tax moom rek mooy koo xam ne sunu borom giñ na ci dundam la amruka innahum la fi sakratihim yamahuun sallallahu alayhi wa sallama kooku mooy sayidna muhammad mi nga xam ne tey moom ni ma ko waxee léegi lépp ko bëgg waaw ko bëgg ñépp ko euh, jox cër bu amee kenn ku ko nangul doomu aadama la doon ak jinne gis na léegi montagne yi montagne yi Uhud na ko firndeel waxoon na ne jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu mas naa taxaw ci kaw Uhud Uhud yëngutu mu këdd ko ne ko usbut Uhud usbut mooy dalal man maa nekk ci sa kaw ak ak siddiq ak shahidaani mu daal ne xam nga loolu kon du yëngatu bëgg <laughs> bëgg indi jafe-jafe mooy daa bëgg <laughs> doj bi daa bëgg sallallahu alayhi wa sallam loolu li koy firndeel mooy am na am na firnde loo xam ne xadis kutub xadis yëpp ko nettali ndax ci jàkk ji la xewoon saxaaba yëpp fekk ko mooy dattub garab gi jisuun yaxinnu ni ko sëñ bi waxee mooy dattub garab gi yonente bi dañ maanaam bu ma saa di xutba ci njëlbeen gi day den nag dattu garab gi ñëwut fa taxaw di xutba ci ci ajuma bi benn a ajuma nag ñu defaral ko ab minbar boo xam ne ñetti escalier la yonent bi génn néegam romb daatub garab bi dem taxaw ca minbar ba bi taxaw bi mu daataa wax dara rek ñu dégg daatub garab gi ci moom di yuuxu nga xam ne ñëpp dañ ko dañ dañ koo dégg moom maanaam saxaaba yi maanaam maanaam ñëpp jaaxle ñun ñëpp garab gi yuuxu <laughs> garab gi moo nga xam ne riwaayaat yi ci rot yu baree bari la am na am na ñoo xam dañoo wax ne xaaraka xuwaari sawri ah mel ne yëkk wu yuuxu am ñu ne saaxati naxlatu siyaaxa sabi yi comme xale bu yuuxu la am ñu ne eh, eh, ma kenn ku ne daal ci saxaaba yi misaal ko misaal ko fi ne xadis boobu Buxaari yi net li na ko ak daarimi ak imaamu Ahmad ak ibnu Maajata ak Tabaraani ak ñeneen ak ñeneen nga xamni ne yonte bi da wacce ci minbar ba ñew ba den nak mom tek ko loxo mu doog a noppi daa yuuxu yuuxu continue yuuxu yuuxu <laughs> ñepp ñëpp ne aw aw garab gi ñoo yuuxu garab gu yuuxu ñepp jaxle de nga yonte bi wàcce foofu ñew tek ko loxo mu dogo mu dogo nopi sallallahu alaihi wasallam. te gis nga li señ wax wa dabbu kallamahu mbeut bi ko yonte bi ne ko ya dabbu man ana may kan mu ne ko anta rasulur rabbil alamina te mbeut mi kat sàmm arab bi fi ne ray nako ba fess ko romb yonent bi mu toog mu ne ah kii ñii de yonent <laughs> tàmbali ci xam moom mu mënta weddi ne ko daal mbëtt mii nga gis daal mu fees ko ba noppi bu la gëmee ma gëm ko yonent bi ne ko man ana maay kan mu ne ko anta rasulu rabbil alamina <laughs> wa xaatamu nabiyina laqad eh, aflaha man saddaqak wa xaaba man kadabak sallallahu alayhi wa sallama mooy koo xam ni njël bi mu door a feeñ gis na niir bi da ko daa da ko daan da ko ko daa topp soxna Xadija li tax mu mu mu mu sàkk yonente bi jël ko loolu ci la bokk waaye dañ ko gis fu jëm rek niir niir yu topp ko xeeti jur gi moom moom fi ne loolu buñ ci jur gi moom moom da naa moom moom dafa am ak ñoom moom moom moom alaaka boo xam ne kii man la toog na ci jàkka ji benn picc ñëw di di di di di naaw ba jege yonente bi nekk fa di coow di di coow yonente bi waaw ne man faja hada bi wala dayha <laughs> ne waaw kii ku jëli ku jël cu cuujam yi am saa bi bu ne ko maa ko jël cuuj yi maa ko fekk ca kaaf ma jël ko <laughs> ca ca ca ba tàgg mi mu ne ko nag loolu nag lay lay coow demal jox ko cuujam yi <laughs> sallallahu alayhi wa sallam bu dee zab yun zab yun yu kallim dañu wax na ko maanaam maanaam eh, zab yi mooy mooy lanante sax kéwal kéwal gi waaw kéwal gi xam moom nettali nañ ko lii yëpp am na ay shawahid téere téere bi ñu ci bind indi nañ ci ay shawahid yoo xam ne wax subulul huda masalan bu alxaafisu shaami indi na yu bare bare shawahid yoo xam ne gën naa leeral yooyu yëpp mooy mooy kéwal gi moom waa ji da koo da koo rëbb ba jàpp ko mu mu mu mu mu mu mu mu romb yonente bi sallallahu alayhi wasallam kéwal gi wax ak yonente bi xam na muy waxee nag loolu moom moo ak yonente bee ko xam dama na xew moom yonente bi moo wax waa ji ne ko kéwél gii nee na dafa bàyyi ay ay doom yu ndaw te war leen a nampal daa bëgg nga jéggal ko mu dem nampal leen te ñëw nga doog ko yóbbu <laughs> waa ji ne ko moo boo ko bàyyi dana ñëwaat mu ne ko boo ko bàyyi dana ñëwaat maa ko garanti waa ji ko kéwél gi dem as ñu gisaat ko mu dellusiwaat mu doog wax yoon te bi ne ko jéggal naa ko daal di doo ko tuub moom moom waajoo ci sam arab boobu sallallahu alayhi wa sallam soxna Aysa wax na lu xorom maanaam nee na ci seen kër imaam Ahmad moo ko nettali amoon na wax su maanaam ci biir kër gi jurug ci ci biir kër gi ak ci gàtt kër gi loo xam ne nee na maanaam bu yonent bi génnee coow lu ne dana ko fi nekk yëngu bu ne dana ko dana xaw a turbale kër gi waaye ne bu yonent bi ñëwee naa teg kenn du dégg ab yëngoom <laughs> sallallahu alayhi wa sallam kooku nag mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax sëriñ bi mag bi daal loolu rek moo taxoon mu fonk moo doon jàngalekat bi gën a mu ne tey xëy na nu jeexale foofu eh, mooy ah, ki ñuy wax Muawiya <coughs> ibnul Xakam Muawiyatu ibnul damaa gis mu nettali wax ju am solo xam nga njëlbeenu lislaam julli sëñ bi lu xoromu ci njëlbeenu lislaam ndax booba julli yombut moom booba Muawiya ibnul Hakam imaam muslim moo ko nettali ak ñeneen wax ne wax ne man ba muy doog ci dugg ci lislaam nee na booba duggee ci julli gi xam nga booba julli kenn xamu ko day doog a yees xam nga julli noonu miin nañ ko rek waaye bi muy door ñëw nga xam ne tey boobu lañ njëkk a moom neen dañoo dugg ci biir julli gi julli ba mu yàgg am ku ma ne ko yarhamukallah nee na ma gis gars yi kenn ku ne di ma xool <laughs> ma ne leen waaw yéen lu ngeen ma xoole nii <laughs> nee ñëpp di tapp seen kii nee na coow li bari lool ci biir jàkka ji waaye yonent bi nee na daa àggale nee na ba mu ba mu jullee ba noppi nee na nag bi abi huwa wa ummi maa raaytu mualliman qablahu wala baadahu ahsan ahsana taaliman minhu wallahi ma darabani wala sabbani wala naharani nee na maa ngi koy jote sama ndey ak sama baay saxaaba yi gis nga koy wax rek loolu lay sama ndey ak sama baay laa koy jotee nee na mësumaa gis jàngalekat bu bu bu mën a jàngalee noonu nee na giñ naa ci yàlla ne gëdduma waxuma lu ñaaw xasuma maanaam mbir mi daal mel ne sax naqariwu ko waxut lu may inna salaataka haadihi laa yasluxu fiha shay'un min kalaami nnaas innama hiya hiya innama hiya tasbixu wa takbir wa tilawatu alquran ne ko julli daal des ci wax lu bokkut ak jàngal alquran ak sàbbal sunu borom ak ak yu demoon waaye nee na gërduma waxu wa maanaam waxuma dara te bu doon jamono ji moom sëñ bi kuy wax ci jekk-jekk ni waaw lu ngeen may xoole di xuloo eh bu noppee kay maa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ab ab ab sàmm arab ñëw na fekk ko ci jàkka ji ne ko dama bëgg nga leeral ma diine ji xam nga sàmm arab yi dañ doon ñoo xam ni li ñuy wax kaw-kaw nga xam ne moom moom moom mbir ma nam ko gis rek da ko wax dama bëgg nga leeral ma mbirum diine ji yonent bi di ko leeral ba mu yàgg mu ne ko may ma tuuti dama bëgg a tuur ndox dem ci minbar bi fa yonente bi jullee mu capp foofu tàmbali nag saxaaba yi yëpp ñi nara a dagg boobam ñi coow li nar a bari yonente bi waxu ca lu may laa tuzrimuuhu maanaam bu leen dog tuur ndox ndax tuur ndox boo ko defee mu yàgg nga dog loolu baaxul bàyyi leen ko ba mu àggal <laughs> sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi ko waa ji àggale ba àggal mu ne wut leen ndox ngeen sotti ko ca doog wax nag ne ko fii jàkka la te jàkka duñ fi def lu may julli ak jaamu yàlla yi lii duñ ko fi def waaye sàmm arab bi dañ ne daal allahumma arham ni wa muhammadan wala tarham hawla <laughs> yal na ma yàlla yal na yàlla yërëm yërëm la yow it Seydina Moom ay gaay yi bu yàlla yërëm ndax ñoom ñoo ko naroon a faat xam nga <laughs> ñoo ko naroon a faat yonente bi ne ko nag laqad xajjarta waasian maanaam mbir mi gën naa yaatu yër yërmaana ya gën naa yaatu mën nga ci dugal gaa ñëpp rek <laughs> sallallahu alayhi wa sallam waaw fi ne benn waay mas naa ñëw ko waxambaane mas naa ñëw ci moom mooy sayidna abu umamata albahili moo ko nettali mooy xadisu imam ahmad ak tabarani ak ñeneen nee na ab ab waxambaane la bu ñëw ci moom ne ko yaa rasul rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li fi fi zina dama bëgg nga may ma ma mën a njaalo xam nga wax ju kuton jooju ku toll yonte bi nga toog ci kam naa ko dama bëgg moom wae saxaaba yépp nar ko nar ko faat rek waaye yonte bi wax ko lu ne ko mu jagasil mu ne ko atuhibbuhu li li uxtika de da ko wax nag atuhibbuhu li ummika ndax bëgg nga ko ñaalo ku ñaaloog sa nday mu ne ko ah loolu kay nag bëgguma ko mu ne ko nag keneen koy ñaalo nday la ci kenn xam nga yaay jàmbur la mu ne ko ndax bëgg nga ko denga sa mbokk mu jigen sa rak wala sa mag jigen jigéen mu ne ko déer lol kay mom nangu ma ko mu ne ko ko dem di njaaloon nak xamal ne rak la ci nit mba muy mag ci mom ne ko ndax bëgg nga ku njaaloog denga linga sa bàjjen mu ne ko xalaatuma ko <laughs> mu ne ko ko dem di momit la ci nit non la ko ba mujj nak mu ne ko nak nga xamne li nga bëgg li nga li nga bëggal sa bop nga wara bëggal waaw waroo def loo xam ni bëgg maanaam bëggaloo ko sa bopp bëggoo ko la ko def daal di koy daal teg loxoom ci dënnam keroog la mujj xalaat mbiri ñaalo sallallahu alayhi wa moom moo tax Seydina Muhammad moom moom mooy jàngalekat bi gën a mag sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla fayal yal na yàlla booleeg moom bu defee nag leen rek moo moo moo ci kii mooy nun sayyidna muhammad señ bi ko jangal señ mag mo jangal sayyidna muhammad mom lañu gis mu bëgg ko yëmulé ko ak dara waxna na shifa u jismi wa shifa u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi gis nga diini ya llahi ma hubbil ladhi al idaqama diini ya hubbu man ilayna arsalana lu ko wax amna diini ya ma diini ya wax ci lu bare bare nga xam diini ya moy bëgg yonte bi sallallahu alayhi wasallam rek xam la wax nako ma diini ya moy bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bëggoo gi nag moom sëñ bi moo na ci nàmbatal yàlla na yàlla fayal nu ko te fayal ko sëriñ bi te bégal ko ci sëriñ bi te boole nu ca jaam ñi nga xam ne ñoo gën a am ab cër ci bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mboolem li ñu def ci ay gàmmoo ki ñaana ki jàng xasida lépp it noo koy def addiyee sëriñ bi di lang ci mom rek ñu ngoog xamna mel na guddal na bu amé ben laaj wala ki mën nañ ko motalé doo def ñaan bo mu nak nu def ñaan rek sallallahu alayhi wasallam waaw a téléphone bi bismillah wala mel na ne mel na jataay bi guddal na def ñaan rek bu benen yoon dégg nga أعوذ billahi minash shaitanir الرجيم bismillahir rahmanir Thank mm -hmm. you. include the Indian of our black things,